asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen xamal ne nan baaxoo def def nañ ko muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëñ bi dana yebal ci jumaa ji nu ne nu séentu weer yi buñ ko si buñ koy séentu it buñ ko yéenee ba noppi it dañuy génn ci sow di taatan xibaar yi ak di gis di séentu yàlla dogal na nag euh, biñ génnee ci jumaa biñ ko yéenee ba noppi ba génn ci buntu jumaa yi bi sow bi mbooloo mu bari ci nun gis nañ ko ban ban ko gisee it lañ daal di def nan baaxoo def rek muy jokkoo kër sëñ bi Cheikh mun Mountakha yëgal ko ko biñ ko yëgalee mu ne loolu baax na kon nañ yëgle ni kon weer yu feeñ na kon euh, na ñëpp xam ne weer yu feeñ na te yii ci ngoonu ajjuma kon suba ci gaaw bi mooy benn moo doon benn fanu tabaski bi waaw ñu xam ne gaaw mooy benn fanu tabaski kon kon altine mooy bisu tabaski gi ñu xam ko kon nag ñoo ngi ñaan ci dara darajee Serigne Touba yàlla yàggal fi suñu njiit li bu baax a baax a baax waaw te ñuy te ñuy yëgle ne it maanaam euh, euh, euh, bis bii nu jëm muy tabaski gi ñi ci ñi ko man lañ ko lañ ko digal ñi ko man léegi nag ki nga xam ne mënu ko moom nga xam ne daa daa dem ba mu wër ko ni mënu ko kooko li ñuy sart ci ay gàtt ak yooyu moom du du ca seet dara lu mu am rek jariñoo ko bis bi day def waaw ñu xam ne daal kim kim war daal lañ naa léegi bu mel gàtt bu mel nangam ak gàtt bu mel nangam moo ko moom moom la cee def waaye ki nga xam ne dem na ba xam ne mënu ko xam da koy leewaataw ko def rek ngir bañ waa kër bañ a bañ a tabaski kooku moom euh, maanaam wutaluñ ko lu mu war a rek lu mu rek ñu xamee ko noonu bu baax a baax a baax day ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ak xéewal kam sëriñ Abdou Diop imam moo doon joto jokkoo yéen fii ci Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu